gaaw leen fay gaaw laay laay laay si apayage bi naa bi moo tàkk ni sobe de li mu def ba tàkk moo jaaxal ñëpp euh. mu ngi tàkk ba mënuñu ko fay. mënuñu ko fay de oto baa ngi tàkk ba léegi. yii xëy na si affaire yi